dalin ak jàmm ci xibaar yu gën a fës ci bis bi mbokk yi xibaar yangoog dañ koy doori reen ak jàpp giñ jàpp juróom-ñeenti opérateur économique foofee ne ca département bu Nioro rawatina ca Poroxaan ñoom juróom-ñeent ñoon nag saat dañoo saar toowul reen ak la nga xamante ni loolu la nguuru Sénégal waxoon ci njëgu gerte gi maanaam jaayee ko diggante daal deux cent quatre-vingt-quinze jëm trois cent francs CFA loolu nag itam sax moo nag ñoom jëndkat yooyu daal liñ doon jëndee gerte gi daal maanaam dafa xaw a suufe loolu bëggoon sax itam ndax ña nga xamante ne nag ñoom ñooy jàkkat nag loolu nag moo waral itam sax gannaaw ba nga xamante ne nag ñoom leen dénk wàllu ne mu di nag waa service régional du commerce nag daal di itam def gëstu yooyee ba teg loxo ñoom juróom-ñeent commerçant yooyee ne lu ci mënti am daal nee nag mbir mi nag jamono bii sax ba tey itam donte nguuru Sénégal charton ak itam ña nga daal ñoom yi ngir ñu benn njëg lu nga ni moom lañuy daal di fixé ngir itam ñu mën koo jaayee seen gëtt nag na ñu nga xamante ñoom ba tey mbir moomee ne loolu nag moo waral saa itam ndawi buur yooyu nga xam te ne daal dañoo dem wàcc sur le terrain ngir xool xam ne nag moom moo doxalin bi nag moo tax ñu teg loxo juróom-ñeent opérateur économique yooyu ne lu ci am nag ñu ngi xaaral ni ñoo ñee seen ay mbir xool ana fan lay mujj ñu daal di àddu itam daal ci mbiru ka nga xamante ne nag moom moo di Barthélémy Dias nga xam ne nag moom dàq nañ ko foofee ne ci assemblée nationale gannaaw itam nag décision boobu nga xam te ne nag waa pencum ndaw réew mi jël nañ ko jaaree ko dem saal ci ki xam te ne nag moom moo di président assemblée nationale gannaaw itam dogal bi nga daal jot na ko ci jëwriñ gi dénk wàllum yoon fii ci diwaanu Sénégal nag loolee am na ku ci àddu moom moo di nag Bougane Gueye Dany di njiital mouvement gëm sa bopp moom nag daal jàpp na ni que rek mbir mi nag jamono bi Sénégal daal justice am xaw naa maanaam taga témbe moom nag li mu jàpp sax moom moo di nag mbir mi kenn dong suuf moom moo di Ousmane Sonko daal moom mooy instigateur boobee Bougane Gueye nag dani li mu jàpp rek moo di jamono bi il faut ko nag ñu daal di résister jàkkaarloo ak ña nga xam te ne nag ñoom ñoo di euh, waa nguur gi ngir itam daal bàyyi nag yenn xoqatal yi nga xam te ne ñu ngi koy xoqatal seeni ay euh, kujje euh, fii ci diwaanu Sénégal rawatina itam daal ci langum bi moom Bougane Gueye den saa itam dem nag bay fàttali sax la nga xamante ni moom moo fi xewoon ci jamonoy élection présidentielle itam bi muy waaj ñëw itam sax moom mi nga xam te ne nag moom moo di Sonko naaw sax bi conseil constitutionnel daal di itam disqualifié la nga xam moom moo di euh, condamnation bugaan nag daal li mu jàpp rek moom moo di nag jamono bi képp ku jig njaag rek Ousmane Sonko moom mooy njaag ndax nag moom moo nekk daal di itam dicté daal nga xamante ni ñoom ñoo nekk euh, fii ni ci wàllum yoon ak yooyu loolu nag bugaan gé moo ko daal di wax li mu jàpp daal moom moo di jamono bi nag itam ka nga xamante ni daal moom moo di Barthélémy Dias daal dañ koo war a delloowaat la nga xamante di mandat wu député ndax nag mbir moom itam daal bi mu amee ak léegi yàgg sax ñoom sax xam nañu ko nag mbirum politique politique dong moom moo ko daal di laal nag saa itam keneen saa ko nga xam te itam àdduna ki ret moom moo di eh, maître Bamba Cissé eh, di avocat wu Ousmane Sonko moom nekk itam daal ci ab benn émission bu nga xam te ni eh, daal moom li mu jàpp daal moom moo di mbiru Ousmane Sonko ak mbirum Barthélémy Dias ñaari mbir yooyee ne maanaam dëppowul benn yoon moom li mu jàpp ret moom moo di Ousmane Sonko daal kenn condamné ko woon définitivement loolu nag moo war a nag moom mën na ñëwaat itam bokkaat ci la nga xam te ni yooyee moom itam sax dem sax ba naan nag loolee nag mi sax ci li nga xam te di mbiru Mame Mbaye Niang maître Bamba Cissé li nga ko daal di dàq li ko a nag moom moo di mbirum Ndiaga Diouf bi nga xamante ni na fii ci diwaanu di condamné ñaari at yu nga xam ni daal itam moom moo di gis-gis di euh, kii di maître Bamba Cissé keneen itam sax ka nga itam daal wax na giret moom moo di euh, kii di Serigne li mu jàpp jamono bii il faut que ñu xam bu baax a baax ana fan la ñuy teg seen tànk li mu jàpp daal moom moo di nag mbir mi itam yàgg na fee am diggante la xewoon ca nguuru Abdoulaye Wade Macky Sall ak itam nag loolu mooy ko ne tey moom moo di nguuru président Bassirou Diomaye Faye bi loolee itam daal seen Mbacké Ndiaye moom daal di xamle mu jàpp daal moo di Sénégal nag jamono bi mbirum politique nag yéen saa dafay dem sax ba yóbbaale la nga xamante ni moom moo di yoon ak itam dogal yi nga daf koy jël loolu nag moo waral itam daal moom nee na nag d'accordul benn yoon nag ci mbir yooyu itam daal dem bay na saxal mandat wa itam sax daal di xañ itam kenn ci homme politique yi seen ak ak seen yelleef maanaam bokk sax ci la nga xamante ni nag moom moo di liste électorale ak itam sax itam daal di ñàkk sax la nga xamante ni moom moo di seenu baat ngir mën a fal ak itam sax ngir ñu mën leen fal kàddu yooyu nag moom Serigne Mbacké Ndiaye itam daal na ko yëkkati rek ci benn waxtaan bu nga xamante am na loolu na ko ak suñu ay naataangoo ñu daal itam àddu rek ca mbir ma nga xam te nag ñoom daanaka nee guddi la ñuy xaar daal di itam yab seen oto dugg ci biir dëkk dëkkaat itam daal nangu la nga xam te ni nag moom moo di loolu askan wi ci weekend bi daal benn waay bu nga xam te ni nag moom ci ab këram la nekkoon dafa yar ay xaru laadum moom nag lañ daal jàpp yeekom dëgër jër kër gi yu bëree bëri yi loolu itam nag nekk lu nga xam te nag askan wi saa su nekk rek dañ koy jooytu ci ay sàmbabo yu nga xam te daal ñoom daanaka fexee rek moom moo di dugg ci gox goxaat ak dëkk dëkkaat yi ngir nangu nag la nga xamante ni euh, moom moo di alalu jàmbur yi mbokk yi itam rek lu mel noonu itam rek ba tey moo daal di xew ba ñu daal di jàpp ka xam te ni nag moom moo ak ay complice am ñoom nag sax daanaka ñett lan ñu nga xam ne daal daanaka ñi nekk seen ginnaaw itam daal bëri nañu ñoom sax ñi leen daal jàpp moom moo di waa brigade bu Kolda leen toppee rek moom moo di association de malfaiteurs vol de bétail commis la nuit avec usage de moyens de transport waaye itam sax complicité et ñoom daal dañ naan sàkk itam itam sax yénn saa di ko jaay loolu nag itam sax moo nag ñoom ñii ñu jàpp leen ñu yor la nga nag moom moo di ay bëy ak ay fetal yu nga xam te ne daal daanaka loolee lañ daal yor comme jumtukaay ka nga xamante ni saa itam nag moom moo nekk ca boobu nag di wékkituru betture nag moom daanaka moom moo mag ci gàngoogee ndax moom toll na ci fanweeri at ak ñeent moom nag ñu ngi ko jàppee sax foofee ne ca marché bu bétail bu Kolda lim fa li ko fa andi woon daal moom moo di daal di andi ay bëy yoo xamante ni daf ko sàccoon ngir daal di koy jaay foofee ne ca marché ba noonee nag saa itam daal la daal di wax nag moom itam mbir mi daal dina koy jaay kenn ci ñi nga xam te ne nag ñoom ñooy liggéey foofee ne ba war a ñoom itam daal ñu daal leen jàppale patam premier leen yóbbu leen ngir daal di leen déglu lu ci mënti am daal nag ñoom jamono bi ñoom ñëpp daal ñoo ngi leen di itam téye téew njëgandiku ngir di leen déglu am na itam sax yeneen boucher yu nga xamante ni ak ay itam jaaykatu xar yoo xam te ni wala euh, ay jaaykatu maanaam euh, mala yoo xam te ni daal ñu ngi foofu ci marché ba ñu bëri ñoom ñoo doon collaborer ak gars yi ba nga xam te ne nag ñoom bis bu ñu sàccee rek dañuy daal di itam ñëw jaaleen ko ñoom itam ñu di seey lu ci mën nag mbir moomee ngir daal di koy itam euh, saafara mu daal di jeex benn yoon foofee ne ci diwaanu Kolda tax na nag jamono bii askan wi ñu ngi fexe daal ba coopérer ak ñi ak ñi way takk yi ngir dimbali itam ña nga xam ne daal ñoom ñoo fa yor jur mën koo yor ci jàmm itam sax li nga xam te ne nag moom moo di samba boo yi seen dem bég dikk bi daal di dakk foofee ne ci diwaanu Kolda diwaanu ndakaaru njaay itam mbirum samba boo yi fës na fa loolu mu di itam daal ay ay gang ñoo xam te ne daal kenn ki mi ngi wog turu SG moom nag ak ay xaritam daal leen ni rek moom mooy faral di nekk seen jikko maanaam xaar ba fajar maa itam sax yenn waxtu nga xam te ne daal yenn gox yi dafay daal di wéet ñu daal di itam fay dugg daal gis ñi nga xam te ne dañuy doxatu ngir daan nangu seen alal loolu nag itam sax moo dal ka nga xam te ne nag moom moo di SG daal moom foofee ne ca Parcelles Assainies unité 3 la jàppoon itam ka nga xam te daal moo di benn jigéen bu nga xam te ni dafa liggéeyoon ba ni ko patam patamee daal di saakam yuuxu xale bu jigéen boobu saa dem nag moom moo wa daal di koy dégg ba topp xale bu góor boobee di wéeg turu SG di ab mécanicien moom nag itam sax gannaaw nag biñ ko tegee loxo nag daal dinay wax itam bu baax a baax ana ñan ñoo nekkoon ci ginnaawam waaye nag lu ñu mënti askan wi leen rek la ñu bëgg moo di ñu gën a la nga xamante ni moom moo sécurité bi foofee ne ci ndax nag su nekk ren wala itam sax yenn waxtu yi daal ay samba booy ñoo ñëw groupe boo yëkki seen ay moto ngir nangu la nga xam te ne moom moo seen alal rawatina sax ña xam te ne dañuy liggéey di wàcc ci diwaanu ndar nag lañ koy tëjee la fa xew nag jamono bi doy na waar loolu foofu nag daal benn famille bu nga xam te nag ñoom mbirum ndono moom moo nar a yàq itam la nga xam te nag moom moo di mbokk gi ba sax am ci daal benn xale bu jigéen boo xam te ne daal moom ci famille boobu bokk daal lañ ko daal di dóor ba gaañ ko ci ab mbiru miraas bu nga xam te ne daal loolu moom moo leen daal di opposé ñoom nag sax ñu ngi ñi mbir mi itam daal ci diwaanu tribunal bu ndar la daal di mujj loolu nag li ko andi moom moo di ndax nag ñoom saa itam nag li gën a yokku ci wàll daal moom moo di gannaaw ay xiiroo ak ŋaayoo ya nga xam daal amoon na ca biir kër gi itam sax ca mujjante ga nag ñuy dem ci yoonu commissariat nag moom xale bu góor bi di di wakkituru F nag moom moo daal di jël barre de fer dóor ko benn magam bu jigéen daal ba itam nag yaram bi daal di am ay jafe-jafe loolu nag itam sax nekk nag loo xam te itam daal gën naa dolleeku ba ngi daal di def mirage ca kër googee ne waaye nag am nag ñoom xale yu jigéen daal li ñu bëgg rek moom moo di lépp daal di tolloo maanaam góor jigéen daal di tolloo loolu nag itam sax nekk la nga xam te ni ñoom ñoom góor ñi loolee d'accord duñ ci benn yoon li ñu bëgg daal moom moo di itam mbir mi nag ñu daal di koy attee attub lislaam bëri itam daal ci mbokk gi daal jàpp ñu daal la waral mirage bi rek moom moo di ay coow yu ndaw a ndaw yu nga xamante ni biir kër googee ne ba itam sax mbir mi daal di àgg foofee ne ca kanamu yoon lu ci mënti am nag daal mbir mi nag jamono bi bu ñu matul dina gën a garaaw ndax nag ay itam nit ñoo nga xamante ni ñoo bokk ndey ak baay ñoom ñooy continuer di xëccoo mbirum ndono ndax Sénégal nag jamono bii daal ñu bëri jàpp ne que ab la bu nga xamante bu ñu matul dina gën a yaatu ñu bëri nag sampal ak itam daal ba xam xëccoo këru baay jar na jël barre de fer dóor ko sa bu jigéen lu ci mënti am daal mbokk yi loolee ñu ngi xaar tontu bi ci biir commentaire yi mbokk yi ma ngi noonu li moo nekkoon tey la nga xamante ni moom moo di moo gën a fës ci seen revue de presse waaye nag mbokk yi eh, ku ne xam na ni nag itam eh, seen fait divers bis bu nekk rek ni niñ ci ànde ak yéen eh, ci doxalinu réew mi ak itam sax yéen mbir yi nga xamante ni daal fii daal di xewee ba itam sax ñu ngi leen nag fan yi passé waxoon nañ leen benn kaa bu nga xamante ni fii ci diwaanu Thiès kaay ci maanaam ci région de Thiès la xew mu di benn waay bu nga xamante ni daal moom daanaka benn sëriñ moo leen daal di encaissé xaalis seriñ bi sëriñ bi daal daanaka li mu leen encaissé moom mat na 17 millions ni mu demee laa leen tegtal ngeen déglu bu ko defee di ngeen di gën a xam dara. salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp ñuy déglu rek ñu ngi leen nuyu di la ziare bu baax ngi amaloon. ñu benn jafe-jafe genn góor gi ñu genn góor koo xam ne day faj fajum wala fa ndox si yooyu. ñu dëkkoon fële ca Mbaawaan amoon cabinet am nekkoon mbaawaan mu dëkkaru Thiès waaw ah. léegi nag daf ñu wax daf ñu yóbbu benn voyage bato bato la woon ah, léegi ñu ngi waroon a dem le premier septembre bee ñu jàll le 31 octobre man mii woo ko jot ko octobre le 31 octobre muy samedi ci guddi woo ko muy muy mu ne ma dama jokkoo ma noppi naa la woo ensuite nees tuuti ma bàyyi ko bi ma bare mm, ma insistiwaat ba woowaat ko parce que comme daf ñëwoon dimanche matin muy loolu léegi bi ma xëyee ci guddi gi ma waat ko jotuma ko bi ma dem bi ma fekk maa ngi doon préparé comme ñu ñëpp daje woon am na ñu daje woon foofu ñu doon defar reer ñu reeree ba pare nag biñ départ biñ ba pare ci la taal sama connexion gis ne envoyé na ma benn message whatsapp dama xaw a occupé waaye suba fajar teel teel leen a ñëw huit heures ni leen fa fekk gën ngaa naaj daal ku gën a naaje na ko fa huit fekk parce que moom mi ngi woon port doon régler dernier détail yi waaw ah, moom ni ñu waxee woon yëf yi daal wax dëgg yàlla lu tegu woon lu ñu waxoon daal lu tegu ci yoon la ndax def nañu day am visite code bu visite da ngay am badge am um, immatricule waaw uh, ah, suñu carte d'identité yi dem na Espagne ñi ko joxoon carte dante ak ñi eh, ko joxoon ah, passeport ñi seeni passeport dem hmm, nañ Espagne ñi ko joxoon passeport ñi joxoon carte carte mais nag joxoo ko passeport da nga ko photocopie rek jox loolu la boole won la wax yóbbu ko Espagne ba cinq le cinq octobre la la kayit yëpp ñëwaat lañu waxaat nañu le 5 octobre lundi le 5 octobre kayit yëpp dellu si na waaw ñu ngi ko joxoon ñii ñu ngi ko jox quatre cent mille ñii jox trois cent mille ñii am nañu ko jox sax deux cent mille waaw léegi nag nombre soixante dix personnes la ñu waxoon mais depuis le trente depuis le trente et un octobre boobu ci ci ci guddi gi à partir de minuit daal ba ba tey jii gisuñu ko dégguñu ko. porté woon nañ leen plainte mook jabaram ak yaayam parce que yaayam ak jabaram nag boo gisee ñu tudd leen ci wala téléphone paa bi bi mu plafonné daf ñoo jox numéro yaayam ak numéro jabaram man moom numéro la ma jox parce que man dama toog ci saalam mu toog fekk jox naa ko xaalis ma benn xaalis ma ko doon envoyé mu ne ma xaaral ma woo soxna si mu ñëw mu woo ko ba mu wuyu ko diw ñëwal kii dalay kii den la dugalal trois cent mille dinaa ko retiré léegi mu dugalal ko trois cent mille eh, ci changé ba ba trois mille yi sax bi bi ma ko koy jox daa fekk dama ci trois mille frais yi dama pare doog ko kaa jox ba biñ paree ñaanalante ba ñuy ñibbi ci laa doog yëkk trois mille jox ko mu ne ah gis nga li may wax ci sa njub gaa ngi nii xam nga ne trois mille yi fàtte woon naa ko ba mu wóotoon sax sama xel génn na ci nii ñuy kafante foofu ba moom sax daana ma tooñ naan ma dinaa mës ñëw seen daara jooju añ si fi wala bala ngeen a départ bala ngeen a dem dinaa ñëw foofu nga ma añ fi benn añ wala ma reer fi benn reer ñu gën a miinante waaw waaw waxante yooyu yëpp man sama bopp rek mm, li ma ko dajale jox ko daal man ñi ma àndaloon six per sept six personnes lañ ak man muy sept luñ ko jox mi ngi tolloon ci deux cent mille euh, deux millions deux cent mille jox naa ko ko man i par maa ngi ko jox par euh, kii espèce laa ko jox yeneen yi ma envoyé ko ko par whatsapp wéef ci numéro jabaram jooju noonu giñ woon amoon nañ tribunal le vingt cinq ba le vingt cinq ba le passé ci le vingt cinq septembre ci mois boobu ñu waroon a dem te demuñu woon amoon nañ ci projet mais mujjul woon aboutir dañ ko daaxoon ba le 4 décembre bi passé le 4 décembre bi nee na ñu ne tribunal amul audience amul ci le 4 bi nga xam ne vendredi vendredi le 6 décembre lañ ko doog a àtte man maa fa fanaan falaa fa fanaan presque ba heures du matin lañu doog a taxaw à la mais boo ñu taxaw à la barre tamit femme bi nekku fa kenn nekku fa mel man maa fa nekkoon léegi ak ñi ak ñi ma àndaloon ci kii bi ci yëf ñoo fa nekkoon léegi nag loolu tamit xaw nañoo jaaral lu tax ñu convoqué le tribunal ñëwoo mais nag bi ma taxee juge bi laaj na ma ba ma expliqué yëpp mu ne ma léegi naa ko indil preuve yi naa ko defal en euh, format papier maanaam comme euh, envoi wéef yi ak eh, yooyu noonu ñi nga xam ne audio yi ñu doon waxante itam ma def ko ci gële benn kele pour indil ko ko le 18 décembre incha allah même ñun nag yëmuñu ci plainte boobu parce que jàll nañ sax ba de paaf li euh, police des frontières bi nekk Abdou Diassé dem nañ foofu tamit plainte nañ ko dañ ko foofu mais aussi dégg nañ ne tamit toxoo na seen kër gi nga xamante ne fi lañ nekkoon fi lañ leen doon fekk ci Thiès toxoo nañ fa ba toxu seen kër bopp itam man daal jàpp naa ne Souley eh, moom jàpp naa ne es eh, es moom mi ngi jàpp mi ngi déggante mi ngi déggante ak famille man lañ jàpp ñoom es Thiam moom daal jàpp nañu mi ngi déggante ak famille te itam wane wane wuñu ne daal mooy loolu waaw wax dëgg yàlla waaye moom lim ñu waxoon ak lim def dara da cee bokk mais nag xam nga Sénégal moom fii boo waxee rek dañ naan da ngaa xoole bañ nax la fekk na yëf yi demee loolu nit ki dëgg dëgg jëm bi nga xam ci moom ak jëm la wan rek loolu rek nga ko mën a nga mën a jugé ci moom mais nag leneen lu mu la wonu boo demee ba ci biir mu ci nga doog a xam ci moom li daal moo gën a yokk waral ñu indi ko fii képp kuñ ci mën a jàppale nag ngeen jàpp monsieur Aboubacar jóge ko waaw ñu ngi noonu loolu daal loolu ci mën a jàppal suñu journaliste bi te yaa Omar journaliste bu point net jàpp leen ci lu ngeen a jàpp daal yàlla leeralal ñu lii ñu ngi parce que wax dëgg yàlla yëf yi ñor nañu trop trop trop trop trop waaye nag li xamut dañuy naan mooy lool waaye paa bi moom wax dëgg yàlla lim ñu waxoon moom ak lim am daa bokkul ndax moom loi euh, bu légal daf nañu sax bu ñuy dem ci vendredi bi ci dimanche matin bi ñaari biis lay gaare ñuy yéeg ci ànd ak benn waaye bi nga xamante ne moom ci boppam kook ci boppam mooy moom borom moo moom bato bi moo indi marchandise bi moo koy delloo léegi moom moo ñuy yóbbu ci bato bi ñu ñaar ñoom ñaar ak ñun ñi ñooy ànd ci bis bi mu jox ñu suñuy ak suñuy euh, visite compte visite ak suñuy badge ak suñuy tenue yi war a sol waaw lekk yeeg yëpp dana woon ci bato bi ci lañ koy def jurut kenn di indi leen ku ñëw mën ngaa gàddu sa sac ak say kayit yëpp sa passeport yow même passeport yow même passeport sa carte d'identité yooyu yëpp lañ waxoon nañu mën ngeen koo ŋàbb du ngeen ci am benn jafe-jafe ak ak yoon airport Dakar bii la ñu doon ko waxee sax est-ce que mën naa am sa carte d'identité moom sax dafa dafa ni loolu moom jëru mën ngeen bu ngeen ci soxla ndax xam naa wóor bu wóor ma ne sama sama sama yéene mooy ngeen yegg ci jàmm te te lool te loolu laa fas yéene lii moo wan ñu daal loo xam ne daal wax dëgg yàlla moo loolu ah, man nag sama benn cousin ak sama rakk ak sama ñetti xa ñeenti xarit daal wax dëgg bokk nañ ci ak yeneen personne nombre soixante dix personnes di waa ji daal lim dajale daal boo ko doon xayma actuellement mi ngi ci entre dix sept dix huit waaw li mu waroon doon lépp nag xam naa ne trente deux millions daal la waroon a doon te nag bari na ci ñoo xam ne fay nañ man nag li tax ma calculer ay douze dix sept douze millions dix sept millions yooyu ma wax noonu ñi nga xamante ne ñoom laa xam rek ci ñi joxe laa wax. waaw mais nag parce que xaw ma soixante nombre soixante dix personnes yëpp xaw ma li xaw ma ndax ñëpp joxe nañ te man nombre quarante six personnes yi ma xam joxe nañ joxe nañ ma ñu wax joxe nañ joxe nañ ko joxe nañ ko dix sept a dix huit millions waaw mi ngi moom ñu ko lu tax ñu bañ gis ko moom ñu ngi koy sàkku nga jafal bi ci lu gën a leer dix huit bii lay doonaat incha allah ayca kon mbokk yi mu ngi noonu ñoo ko déggandoo xam nga nag man xam naa ñoom Cheikh Thiam ca itali moom xam naa ni Cheikh Thiam moom xam naa ni tey fa mu wax ni maanaam lan lan mooy secret tukki quoi lan moo tax ñu bëri bëgg bàyyi réew mi dem tukki ndax Cheikh Thiam moom xam naa ni moom tey moom cas bi man moom laa koy laaj alaaj Cheikh Thiam ci Italie ndax moom ndeysaan yàlla baaxal na ko saa yu xëyee dina joxe gis-gisam ci suñu euh, revue de presse bi ak itam suñu la nga xam te nit moom moo di fête d'hiver yi waaw kon daal man li ma jaaxal nag moom moo di Euh, tey jii bateau boo xam te ni ne la port lay déparé xam nga itam euh, te te man li ma jaaxal moo di sëriñ bi daf leen nax ñoom ñëpp ci comportement am ñoo waxtaan ak ñoom waaye daal xam naa ni yéen peut-être di ngeen ci joxe xalaat ñoom jamono bii lekk nañ seen xalaat mais maanaam pour yéen ban piste lañ war a jaar. ak ak itam heure procès bi tamit ndax ba 5 heures du matin wala 6 heures du matin itam daal daanaka nee na ñoom 8 heures lañ ñëw ñu toog ba 5 heures du matin ñu a woo eh, kon xam tamit ñu ngi liggéey macha allah di leen jaajëfal bu baax a baax eh, di jaajëfal itam bu baax a baax sama grand frère boobu di Abdou Ba moom itam eh, nekk ci secteur boobu di ko ñaanal yàlla yàlla ko yàlla dafa jàmm kon mbokk yi mu ngi noonu lépp moo nekkoon tey la nga xam te ne moom moo gënoon fës ci seen revue de presse ànd ànd koog divers nuyu suñu internet Euh, ñoom oustaz ca Brésil Adja Mada Diop suñu yaay bopp nga xam te moom bis bu nekk da koy déglu ak itam El Hadj Cheikh Thiam mi ma wax léegi léegi ah ah ñoom mataar Sarr ñoom ñëpp di leen nuyu bu baax a baax tarkalla waaw. waaw kon mu ngi noonu daal ñun ñëpp ak itam ah, waaw fàttali naa sama sama théorie bopp El Hadj Ibrahima Guèye nga xam ni moom mu ngi ca Thiès ndeysaan rond point garage moom ndeysaan yi ñuy sol yëpp daanaka moo ñu koy ñëw waaye dañuy fay <laughs> waaw dañuy fay ndax la waaye taarkal waaw di waaj itam bisam le di ko wax internet yëpp nag ñu bàyyi xel bu baax a baax kon mbokk yi xam naa ni lii moo nekkoon tey la nga xam te ne moo gën a fës di leen fàttali itam tamit suñu partenaire bopp borom boost naturel nee naa leen produit boobu moom boo ko jëlee boole ko café mbaa meew ah <laughs> ña ko jël ñëpp di ndeysaan ñu ngi may woon ne ma lii yéex naa koo jël kon ku ko bëgg rek mën nga ma 77 618 72 08 ñu teg la ci yoon wax la nan ba jot ci ak itam 75 525 52 16 ak itam numéro caisse info yooyu yëpp nag itam daal mën ngeen cee jaar itam euh, jokkoo ak ñun ci seen itam jafe-jafe comme kii ni mu def rek ndax dégg suñu waa ji moom ni mu def moo di dafa dégg suñu numéro ci revue de presse beeg yooyu maanaam waxtaan ak ñun wax ñu la nga xam te ni moom mooy jafe-jafe ñu jàllale ko kon itam yéen ñëpp mën ngeen ko def yéen itam ña nga xam te ni tamit da ngeen am lu ngeen di fësal bëgg ko mu jaay tamit ñoo leen ñu dimbal leen ci incha allah ndax ndax itam ñoo ngi ñoo ngi ci fin d'année ñu bëri ci yéen amaana suñu ay soppe lañu ñu ngi déglu rek ku ci waay ñëw rek itam daal ñu jàppale ndax Sénégal ci jàppalante leen toll ñaan yàlla yàlla na def ci jàmm ci réew mbokk yi li moo nekkoon tey seen revue de presse ak fait divers ànd ko Thierno Aboubacar Anne rendez-vous suba jàmm incha allah jërë ngeen jëf mbokk yi